billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim niñ leen ko waxee woon kon xam naa tey émission bi dañ koy doogoo door ñi fas yéenee indi ci euh, thème bu gàtt rek tënk ko ci ay minutes yu gàtt yoo xam ni day jëm ci xaside yi ndax ni ñu gisee li sëriñ bi daj ci mbind mi ak euh, wéral gi mu ko wéral ak ni mu waxee ni lépp la koy toxalee ci lawxul mahfuz mu def ko loo xamante ni njariñ lay doon ci jullit ñëpp ginnaaw nit ki nag balaa moo euh, jariñu ci mbir da koo xam ba bare looloo tax ñu fas yéenee indi ay jàngat lekk ci benn tomb bu gàtt ci lu jëm ci xasida yi ndax xasida euh, dafa doon loo xam ni dafa doon li gën a mën a maye ngërëmul yàlla sunu borom ak àggale jaam bi ca moom lu mën a maye xol bu set la ak fajuk aajo ak mbég mu sax àdduna ak alaaxira ak jiitu sag maas ci zahir ci baatin ak xam lu bari loo xam ni nëbbu na niti kese yi nga xam ni mel dem bay gis yonent bi sallallahu alayhi wala sëriñ bi walla yu mel noonu loolu xaside daf koy maye nga xam ni dina àggale nit ki ci suñu boroom ak goo xam ni xëy na jaamu yàlla dana ko may waaye mm, coono yi cay nit di daj ngir àgg foofu day daal doon lu xaw a jafe te xasida nag dafa gaaw a mën a àggale ndikk ci yàlla ndax daa doon loo xam ni euh, ki ko bind makaamam na mu toll ci suñu borom muy cheikhul xadim ak waxtu yam ko bindee ak la la muy wax ca biir looloo tax mu doon lu mbir mu yéeme moo tax sëriñ bi wax ni tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama axna samay xaside day àggale jaamukatu yàlla bi ci yàlla ci lu dul wéet ba tey sëriñ bi wax ni kitaabat yi faaxat suyooqa tarbiya wa kulla xayrin wa suyooqa tarxiya samay xasida kawe na sëriñub tarbiya ak sëriñub tarxiya ak wépp yiw mu mel ni sëriñub tarbiya li li ko wóotale xaside yi mooy moom daf lay digal di la tere bu dee xaside yi nag moom duñ la digal duñ la tere da ngay jàng rek bu ko defee ñuy def li ñuy li muy def ci yow loolu nag li ko waral mooy sëriñ bi ak yeesal maanaam diineem da koo def lépp ci xaside yi moo tax mu ni tawaali fasaadaat yi u jaddidu xan li wajhi llasi ala midaadi wa min xami maanaam taalif yi nga xam ni ñama fi jiitu woon ñoo ko doon ñoo ko defoon laay yeesal ngir jëm yonent bi sallallahu mu mel ni yeesal googu ci gan anam la koy defee mu wax ne alaya tawaalifu lati yahtadi biha iza shaa rabbi gayru man faaza ni abda bi taalifi ilahiya al wa kullu man raama hudaahu bil huda maanaam day def taalif yoo xam ni ku dul ab yenent boo ko jàngee da nga ci gindiku maanaam taalife yoo xamante ni yonent yi moom ku ne xam na ni suñu borom moo leen di yaral boppam moo leen yi teg ci yoon ay maasum lañ maanaam yàlla def leen di musal ba duñu duñu def bàkkaar waaye sëriñ bi nee na ku dul ab yonent boo jàngee xasidaam yi di nga ci gindiku maanaam di nga amaat loo dolliku ci sa digg ak sa borom mu mel ni loolu karaama la moo tax mu ni karaamati xatu yadi fi xidmatil mu ayadi wa kaana lii bil afyadi allahu muulil karami te maanaam bépp xol boo xam ni dangay sax di dellu ci suñu borom xol boobu bu àgg ci yàlla la te àgg ci yàlla moom mooy képp kuy jaamu yàlla rek loolu ngay ut mooy li tax nit ñi jaamukat yàlla yi mënatuñoo nelaw mënatu mënatuñoo lekk te loolu moo am solo ci àdduna ndax suñ borom dafa wax ni wama xalaqul jinna wal insa illa liyabudun maanaam binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma te jaamu googu lii meññeenteef bi mooy fexe ba nit ki am ngërëmal yàlla saa yu amee ngërëmal yàlla rek mooy àgg na ci yàlla xasida xasida nag li muy jariñ ci àdduna la muy jariñ ci àllaaxira moo gën a kawe maanaam moo tax sëriñ bi am na euh, lettre bu mu bindoon di wax ni xasida yi nga xam ni gannaaw ba ma jugee géej gi ci laa ko def Euh, lu ci waay fas rek suñ borom dana la ko defal ndax liggéey bu ñu nangu la dem na sax ba wax ni mbooleem li mu bind rek lépp rek moo xam njëkk géej gi la wala euh, après géej gi suñ borom nangu na lépp kon xasida lu mat a fonk la rawatina moo xam ki koy durus la wala ki koy jàng wala wala ki koy jàng njàngum rajas wala ki koy kii kuréel wala ki koy njàng njàngum aw bu ko defee lenn lenn lu ci nekk rek nit ki bu ko sellalee diggam ak boroomam la ci sëriñ bi ñaan yëpp dana dana ko am ndax sëriñ bi moo wax ni yaa jaa'ilan xattiya fawqa zanni wa zanni xayri yaa azimal manni mooy suñu borom def na sama mbind mi mu kawe njortu kawe njortu keneen maanaam kon la nga doon ñaan ci xasida ga suñu borom sax mën na la caa defal lu kawe sa njortu bu ko defee xasida li ko li ko li ko móol ay ponk yu baree baree bari la dañoo jële ci ab xadis ci abi hurayra mu wax ni mu ni wa an abi hurayra radiallahu taala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man xaala laa ilaha illallah waxdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in xadirun fi yawmin miata marratin kaanat lahu adla ashari riqabin wa kutibat lahu miatu xasanatin wa muxiyat anhu miatu sayiatin wa kaanat lahu xirza min ashaytaani yawmahu zalika xata yumsiya walam yaati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila akthara min zalik abu hurayra dafa wax ni jëlee nañ ci yoon saa mu ni képp ku wax laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli shay'in hadirin ci bis bi fukki yoon wala téeméeri yoon suñ borom dina la bindal tuyaabay ku goreel fukki jaam ba pare bindal la téeméeri faral la téeméeri bàkkaar te loolu day dox sa digg ak seytaane ca bis ba te ku deful ni yow ca bis boobee yow yaa ko ëppi tuyaaba yaa yaa ko ëppi daraja bu ko defee boo xoolee nag zikar boobu benn benn ponk la ci xasida zikar benn ponk la ci xasida ndax sëriñ bi moo wax ni ila tawali fii yaqulullahu asrara la ilaha illa sunu borom def na mbooti laa ilaha illallah ci sama taalif yi su ko defee sant doog a ñëw ànd ak i njariñam julli ci yonent bi ñëw ànd ak i njariñam def gi ko Sëriñ Tubaa def ñëw ànd ak i ngëneelam ndax du bokk ak bu ko keneen defoon walla ndax mbindam day daal di wuuteeg mbindum keneen looloo tax sëriñ abdourahman mu sëriñ abdul xudus yàlla na suñu borom dolli ko yërmande ak njéggal ak ngërëm daan na wax ni xasida mat naa fonk ngir sant ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi ak jéggalu lépp mu ngi ci boo jëlee warmaal gi ko suñ boroom warmaal doog a ñëw ba tax sëriñ bi wax ni ida katabtu tazza arshul baaqi wa sabaqat malaa'iku tibaaqi bu may bind aras day daal di jaayu malaaka yi di sàbbaal moo wax ba tey ni adhaka rabbiya rasulallaahi bi xattiyal moxsi aduwallaahi sunu boroom reeloo na yonent bi salallaahu alayhi wa ci sama mbind te loolu day daal di doon daraja ju kawe kawe kawe daal di waxaat ni tabassamal muxtaaru min jinaas yi maanaam yonent bi salallaahu day muuñ ci xeetale gi may xeetale sama mbind xeetale nag mooy comme sëriñ bi nii mu def nii rek farixa xayrul bashari jinaas di bu ñëwee ci euh, ci biir dinañ ko leeral ak li mu wax ni farixa xayrul bashar yi maanaam yonent bi mi nga xam ne mooy gën gi mbindeef day bég ci sama mbind bi xatiyal mubashiri daal di waxaa ni farixa xayru mursali daal di ni ki nga xam ne moom mooy gën gi ki ñu yónni ci yonent yi day daal di bég su may bind bi xatiyal muhassali daa di waxaa ni isa katabtu farixal mu mu muzammil dafa bokk ci turu yoon sallallahu alayhi mooy ni ko alxuraan waaye yaa ayyuhal muzammil sëriñ bi nee na su may bind kan yoon saa sëriñ day daal di bëgg xeetale nag bu ñu ko waxee mooy comme bayit bii li sëriñ wax ni yaqiini yaqiini xubba maa la yuhibbuhu nabiyun rasulun jaadalil bil muhalladi nga xam ni ñaari yaqiin yi yooyu li ñuy nduroo lépp taxul ñu bokk li ñuy firi moo tax sëriñ saalixu mu sëriñ Tuubaa daan na wax ni taysirul asir amul wenn bayit woo xam ni bi ko sëriñ bi di bind lu dul suñ borom wàcc na màggal bayit di doo ko dellu kon loolu muy lu muy lu yéeme nga xam ni euh, wàcc gi suñ borom di wàcc di màggal bayit woowu warut a jaaxal kenn ndax suñ boroom amul temps amul espace amul makkaan maanaam féppam féppam ci moom wala nga ni suñ borom mi ngi fi fépp bu ko defee yoon saa sam daan na wax ni guddi gi boo xaajee ba ñetteelu xaaj bi suñu borom day wàcc ci asamaan si ñu gën a jege daal di wax ni ban jaam moo may ñaan ma nangul ko ban jaam moo may jéggalul ma jéggal ko kon loolu buñ ko méngaleek waxi sëriñ Saliou bi rek dangay ngay daal di mën a dégg ni kon sëriñ bi bind gi doon bind tey silence ci waxtu njël la ko doon bind te teewul tamit suñ boroom du doonul kuy sonn doonul koo xam ni day dem ak ñëw waaye jege gi muy jege jaam bi ndax moom moo wax ni wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid maa leen gën a jege seen buumi xol kon loolu mooy xasida kon xasida kon képp ku ci yëngu war nga koo fonkaat bu baax a baax a baax xam ni yor nga wurus woo xamante ni mënoo ko weccee daray daray àdduna mënoo ko weccee daray alaxira mën nga cee tabax sa àdduna mën nga cee tabax sa alaxira waaye li loolu nag buñ ci duggee day day day laaj nit ki xam lan mooy xasida xasida mi ngi jóge ci baatu xasoda gi firi jublu na su ko defee boo ne xasida mooy li nga jubloo wax ci alluga moo xam woy la wala wesar waaye bu fekkee ci arud la mooy lu ëpp lu ëpp fukki bayit jëm kaw am na ñu ne mooy lu gën a kawe juróom-ñaari bayit ba noppi doon lu ñu peese ci balance arud arud yi nga xam ni fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom la bu ëppee balance yooyu Euh, wala mu yées ko kenn du ko dootul baax arun mooy balance yi nga xam ne ci lañuy peese way yi bu manqué balance yooyu tamit dootul baax waaye sëriñ bi moom mel na ni jàppewul loolu muy xasida ndax am na xasida yum bind yoo xam ni matul matul juróom-ñaari bayit wala ci lay toll wala mu toll ci juróom-benn bayit te teewul xasida la ko tuddee bu ko defee loolu mooy xasida buñ ñëwee ci lan mooy wesar wesar mooy wax joo xam ni kenn peesewu ko ci balaa si xarut moom nag dana am léeg lu ñuy wax tolloole ci wolof te arab nan ko sajoŋ ci arab mu mel ni boo ne allahu rabbul alamin muhammadun sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama rasuluhul amin nga xam ni daaneelu kaay yi ñooy tolloo loolu nag bari na loolu li muy am ci wesaru Sëriñ Tuubaa boo xoolee muxaddamatul xidma lépp moom la nga nga jël benn Euh, bayit benn benn euh, bayit muy xarfu zaalil mujama wala nga jël benn xaraf xarfu zaalil mujama muy allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin addaakir wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbi wa asimni fi daareeni bi jiyaayi min kulli shay'in daahir nga xam ni loolu mooy sajan nga xam ni euh, wesar lay doon waaye daaneelukaay yi ñooy nduroo noonu la ko topp ba mu jeex muy muxadamatul xidma ak muxadamatul kubra ak kanzul muxtadin wesar wuñ tolloole nag foo ko fekk mooy gën a neex a jàng ñu ki mel ni muxadamatul xidma ak muxadamatul kubra fi mu toll nii lu muy bari bari bari am na murit yoo xam ni mokkal nañ ko buñ ñëwee ci way way mooy lan xam nga sëriñ bi lu ëpp ci am bindam way la way mooy wax joo xam ni dañ koo peese nga xam ni danañ ko mën a neexantal moom nag am na téere yoo xam ne moom rek lañuy jàngale boroom xam-xam yi nag danañ ci teqale ci way lu ñuy wax nos ak wax ad nazmu wa shi'ru nos mooy wax sa yëg euh, ad nazmu mooy jël waxi jàmbur nga nga nga nga nga way ko loolu mooy ad nazmu mooy nos ay wax bu dee shi'ru nag mooy wax sa yëg-yëg boo xoolee sëriñ bi téere yi mu bind ci xam-xam yu bari lu ci mel ni tazawudu sixaar nazmu lañ koy woowe nga jël tazawudu shubaan nazmu lañ koy woowe nga jël jawharu nafis nazmu lañ koy woowee ndax jawharu nafis allaxdar yu la ciy way bu ko defee alquran moom mel na ni boo xoolee ash-shi'ru moom bariwul lu mu koy yëkkati gis nga li mu wax ci alquran yi wa shu'araa'u yatba'uhum al-ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun waa annahum yaquluuna maa laa yafaluun wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghii lahu bi xawli shaa'irin qaliilan maa tu'minuun waaye li ko waral mooy ña ko daan def seen pas-pas moo seetlu seetlutoon ndax liñ ci daan ut ba xoolee ci asrul jaahiliya daan nañ def ay way waaye dañ daan way maddaxa lañ daan def tagg nit ki ngir mu jox lay xéewal wala nga dem ci buntu buur yi di leen tagg wala nga def euh, euh, di di di xas sa moroomu woykat wala ngay xas genn giir looloo tax euh, sëriñ bi daal di wax ni laakin ajastu amal tamastu wa ma madaxtu ka soxara yi maanaam daanaa way lottu naa ci way yonentu sallallahu ak li may sàkku moom waaye nag nii may wayee bokkut ak na soxara yi daan wayee moo tax mu wax ni jaawatu rabban kariman saana lii xibal yi bil mustafa an laxal aliya yi fas sanadi su ko defee annas mu mooy wax joo xam ne danga koo nos achian rek mooy wax sa yëg-yëg comme niñ ko waxee masaalikul jinaan tamit dafa bokk ci nazmi yi bu ko defee way ak wesar lan moo ci jiitu loolu nag am na wuute ku mel ni taaha xuseyni moom nee na way moo jiitu wesar waaye am na ci boroom xam-xam yoo xam te ci waaye bu ñu doon wax ni way ak wesar lan lan la ci ëpp lu sëriñ bi def ku ne xam ni sëriñ bi way na wesar na waaye kenn sikkiwul ni lim way moo ëpp lim wesar te loolu nag te teewul nag lim wesar bari loolu lim wesar bari na loolu euh, loolu li ko waral mooy euh, dafa doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ci ay wayam maanaam dafa jël ay wayam di ci liggéeyal yonent bi sallallahu moo tax mu ne yasuru xayral mursalin maa sihaabil ajmalin wa alihi almukammalin iqdaamuhu bi xalami lahu alaya hadaaya shi'ri naafilatan li wajhi rabbi bi xubbin xadbaral kabida lahu alaya li wajhi laahi laa li laxan duyunu madaxin tazidu sabqa wal umura lahu alaya li wajhi laahi daynu sanan mustaxsanin kulla aamin yowma yuxtaaru addiya bi muy jox yentu sallallahu alayhi wa sallam yépp way lay doon teewul nag mbóot mi nekk ci ay wayam moo nekk ci ay wesaram moom sëriñ bi loolu tax mu wax ni liyan xaada indal baxri maarumtu bi rida walin xaada sirrul ismi bin nasri wa nasmi sunu borom defal na ko mbootum ismullahil azam ci ay wayam ak i wesaram mboot moomu nag mooy jañ ak i mooy xëcc mooy moom mooy dàq ci lay sëriñ bi di xëccee li muy bëgg ci lay li mu ragal moo tax mu wax ni daafii wajal bi xidmatul haadil amin maal amini wal amin laa amin sama xëcci ak sama jañ mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ jëlee ñëwee ci tomb bu mujj bi nga xam ni fan la sëriñ bi njëkk a taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sëñ Musaa Ka radiyallahu taala anhu wax na ko nee na bi mi ngi njëkk a taggee yéen sëriñ Tuubaa moo daan wax ni Mbàkke Bawal fonk naa ko ngir ñett mooy fala falaa ganee àdduna fala ma Cheikh Omar Fuuti yu taal doon seetsee falaa njëkk a taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma xasida gi nga xam ni nag ci la njëkk a taggee yonent sallallahu alayhi loolu moom gisaguñ benn borom xam-xam mu indi ko mooy xasida gim njëkk a way yonentu waaye xaside gim mujjee way yonentu sallallahu alayhi moom mooy borom xam-xam bari maase nañ ci ni mooy xaatimatu munaajaati bil xatti kon nga gis ni loolu mooy li ñu mën a tënk ci xaside yi nga xam ni njariñal xaside yi bari na loolu waaye euh, temps bi moo ñu ko dul may boo ko defee bu ñu amaatee beneen émission dinañ àggal àggale njariñal xaside yi li tax nag lii ñu koy indi di ko leeral pour jànkat xasida yi mën a xamaat bu baax a baax a baax li ñu am ak li ñuy tiim di jàng nga xam doonul ay kayit rek waaye seen njariñ la àdduna ak alaxira ndax xam ni sëriñ bi daan na wax ni ba benn bis toog na ci njaareem wax mag ñi ni kenn ku ne xasida ga nga yor nag ko mag ñi kenn ku ne dem andi xasida ga nga yor mun leen dama bëgg ngeen fonk xasida yi te xam ni bu ngeen duggee ci bàmmeel kenn ku ne xasida ga nga yoroon moo lay fay wéttali di la defali xéewal ba keroog bis di taxaw kon loo xam ni nag moo kawe sayxu tarbiya kawe sayxu tarxiya kawe sayxu tasfiya nga xam ni boo ci jàppee mën na laa àggale ci yàlla te du jar ngay duggi xalwa loolu lu mat a fonk la nit ki nag daan maanaam li ko jege te bari ci euh, loxoom loolu dana dem ba fonkeel gi day daal di xaw a néew ndax li mu ko jigee ak li mu bari ci moom waaye lu ñuy gën a xam njariñal xasida yi rek di gën a fonk xasida yi bu ko di ko defee di ci gën a jariñu seen mbokkum taalibe Zaid Ba moo doon jàllale li ci mañ Majmahun Nurayni TV di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu